fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ci njiital sëriñ maam Cheikh Fall ñoo indiwaat seenub àddiya ngir jébbal ko ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di xalifaam at mu jot bu ñuy waajal koor gi ci talaata ji dëppoog le 29 mars 2022 ñu ñëwoon doon indil addiya sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbend mi nga xam ne mooy xalif général des Baye faal jébbal ko addiya ji ñu dajalee waaye ni ñu koy defee at mu ne jaar nañ fi nga xam ne moom moo di kër sëriñ Saaliw Faat Sow jébbal ko seenub ziar waaye leeral ko liggéey bi nga xam ne at mu jot danañ ko ko leeral laata ñu ko yóbbul xalif général de Baye Fall. waaye xam nañu seen diggante ak ñoom. waaw waaw xam nañ seen arona. kii ngeen ñëw nii. Mhm. bi mhm. doon nit baaxal. nit la koo xam ni fierté mboolem ku sant Fall nga ci personnalité am ak niteem ak mën a defar yi bokk doon nit koo xam ni yoon wi rek moo ñor na defar rek moo ko ñor noppam yi buggu cee dégg lu dul lu baax barke sëñ Modou Moussa yoon wi rek moo ko ñor nag lépp lu sëñ ba mësa santaane ci këram gee kenn mënu ko ci ndax asgor su defee lim man wàcc na yàllaa ci des kon moo tax ba ngeen moo xeen daan fi jaar loolu force la te aron mi leral na ma seen wolere gu yag mom mi nak dafa am baat bo xam seigne Cheikh Fall Baye gor da ko don wax ci mom da wax ni seigne mi bo ma daan sama mam te it am ci ru bopam dafa am ben at moy tukki dem France dem ben gi xawa deugar tuti ndax xam nga kat danaka bu toge lengal dara gisut dara mu xawa a bima defé ma defee samay labaraat ba wax Cheikh ibrahim mom mi la gënt mu ne ma loxo bi ma ñaanle ma raay sama kanam defe naa ne ci suba ga rek laa tàmbalee yëngu ñëw naa fa ci at mi sax joxe sëriñ ca waaye waxuma ko sabab bi dëgg dëgg dëgg baatin bi waaye yàllaa ma boole moom sama bàyyi la sama xarit la sama lépp la wallaahi al asim sëñ bi nga yokkulee na ñaanal bu baax faal ñu am pasteef lanu ñu am pasteef lanu ànd bi ngi bëgg a yàgg ndax léegi mu def fukki at fu nu mës a jógee ci yow bu dee nag lañ àndi maa koy jëli fee lu ñu mës joxe rek buñ jógee ci yow dinañ jaar ci man bu ñu ne sëñ saaliw lañ jaar man ak ah kooku sama baay jaajëf Fall Ndiaga jaajëf ñaanal leen bu baax a baax a baax Fall jaajëf Fall jàmbaar lañ alhamdulilah lu ñu indi rek bu déwénee daañu indi lu ko ëpp. alhamdulilah loolu nag moom ak dox la. ak yokkute la yi xam naa ne am nañ pas pastéef yu jëf. <laughs> waaye ki ñuy jëfal it <laughs> am na tey. alhamdulilah ndax li ñu koy yóbbu daal maanaam ba ñu tàmbalee jaar ci man daal di ko fi indi at bi ma di ko gis. <laughs> at mu jot. dëgg la dana ñaar ci la ñu indi woon. alhamdulilah ci ren jii. wallaay wallaay ci naaj yi ren jii. wallaay wallaay waaw est-ce que soññi fa tudd nag ndax. dëgg la da cee rax te raxu ci. dëgg la te la. dëgg la dëgg la moo tax waaye lim bu matum lim la de. dëgg la mat na ba rek seere naa ko itam. dëgg la alhamdulilah alhamdulilah di sant rek di ñaanal. alhamdulilah yàlla boole ñu dimbali rek. te xeer ci sëriñ bi te suñu yéene ci sëriñ bi rek yàlla yeggale ko. alhamdulilah ba ba jëf yi daal. ñoo am man-manam. ak gàttal bi ak ak xéewal yi ñu ko mën a jëfandikoo. jërëjëf ndax man loolu rek la naam. xam nañ ko def waaw rawatina nag kër Cheikh dëgg la surtout fi yéen ngay def di indi rek. day tombeek liggéey bi Cheikh Ibra. teew ndax ndogu yaa ngi nii. dëgg yaa ngi nii ñu ñu ñu ñu di ko ci def. dëgg la li bi moom ko fenn pour ci sëñ bi rek. kon war sant yàlla yéen la jërëjëf jaajëf ngeen nu nuyu bokk yi fa xam ne ñoo fa des itam mm-hmm. te santal ñu leen bu baax a baax mm-hmm. ndax li nu amul lu moom daal mm-hmm. ñu ngi lay won ni seenu jàpp sore nañu waaye seenu jàpp ak sunu jàpp ñoo am kepp dëgg la Fall waaw ñoo am kepp dëgg la Fall ñoo ngi sant bu baax leen gërëm ci leen yi sëriñ ko ginnaaw bi ñu fa bàyyeekoo ci la ñëw fi nga xam ne moom moo di ci Baye Fall ga ci kër xalif général des Baye Fall am di Fall moom sëriñ du Mbenda ñoom jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ yabaloon ñu ñëw jébbal sëriñ bi seenu àddiya ñu xayma ko ci fukki million ci sunuy koppar maanaam 10 million de francs CFA ginnaaw bi ñu jébalee sëriñ bi àddiyee ji sëriñ Omar Dumbuya mi nga xam ne yàgg naa fekkee jotaayib ñoom bay Fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada daan indil àddiyee ji sëriñ Cheikh Jëmb Fall yëkkati na ay kàddu leeral sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenda liggéey bi nga xam ne taalibe yi nekkee ci réewum Canada ci njiital sëriñ Maam Cheikh Fall moom lañu ko indil. waaw fukki million ñoom nag. Mhm. Canada lañ daan tàmbalee liggéey bi. Mhm. Arona Jeewo mi mhm. ak Cheikh ture ñoom la yàlla dogal ñu féete fi waaye ñu ëpp ci liggéey bi daanaka danoo féete Canada. am na ñeneen ñoo xam ñoo ngi saw yu jant. ñu ne fa. Mm, euh, ci magam bu baax ba lañ ko tàmbee tàmbale woon liggéey. seen ceex jëmb. fukki ngi nii ñu tàmbali koo liggéey. liggéeyu ndog yi. jàppale nañ ci señ bu nu ne donte ka nag bu yóoga ñëwee ci ñoom la jëm làq nañ ci it ngërëmal sëñ bi ndax ni ñu foboo nii ñëw noonu lañ ko doon defalee sëriñ bi ba sëñ bi yóbbaale na seenub liggéey tey jii nag sëñ Moustapha mii mooy Cheikh Ibrahima Fall di sëñ di sëñ Modou Mbenda ñuy ñaan sama borom yàggal ko te wéral ko mboolem jëf ju baax joo xam ne magam ju baax ji defoon na ko ñuy ñaan mu fooxu ko ndax boobaa dañuy xam ne yoon wi dox na te it am na xol bu mu ko defee moom bu yàlla attee ci xolam rek ni mu ko ni bëggee sama borom dana ko ni defee ñoom nag ay fere lañ yoo xamee ne Canada lañ ne woon seen waajur yi yóbbu leen fa ñuy jàngi njàng rek leen fa yóbboon sama am nag fekk leen fa tàbbi ci seen biir xol ba dimbali leen bi sëñ bi toogee ci lalu Cheikh Ibra gi bi mu doxee tuuti ñoom nag lañ ñëw ci sëñ bi jaayanteeg moom lu ne daan nañ ko andil sëriñ bi ci liggéey bi ba ni sëñ bi jiitoo nag ñu woyal liggéey bi nii daaw rek jox nañ ko sëñ bi sëñ bi sant leen ci gërëm leen ci xamal leen liggéey yi may liggéeyal Cheikh Ibra ci koor gi làq ngeen ci sama ngërëm te ma dégg fu maamam wax ni ndogu yi may toggal sëñ Bamba ku ma jox lu tollook tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàbbal làjjana kon defe naa ne li ñu tàbbal sëñ bi ëpp nag tànk waaye nag lii nag kenn sañatu koo lekk ku dul Cheikh Ibra te Cheikh Ibra ngi nii toog yàlla na yàgg lool te wér toppi ca ñi ñu seqal liggéey bi nag ñoo ngi Canada ab daayira la am na ñeneen ñoo xamee nit bokk nañ ci liggéey bi ñoo ngi sowu jant ak ñu Sénégal gépp rek ñoo ko jox sëñ bi addi Cheikh ra di ñaanal sëñ bi yàgg fi lool te wér topp ca sëñ bi ñoo ngi sàkkuwu ñaan ay donga lañu lu baax rek lañ bëgg am na lu ñu ragal li ñu ragal na leen sëñ bi ñaanal buñ ko gis mukk liñ bëgg benn bëgg-bëgg dong la mooy am ngërëmalu sëñ mustafaa mii ak ngërëmalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñoo ngi ñaanal sëñ bi yàgg fi loolu te wér topp ci jëf ji nag xeeb nañ ko lool nga ñaanal leen ba bu déwénee buñ fi dellusiwaat mu fekk la fa danañ joxe lu lii la ndax moo ngi ci seen xol bu amee lu ci jub ñoom la waaye bu amee lu ci dëng matadi doomu aadama la ndax dañuy def saa yi ñu ñëwee fi ngeen jox ñu cër goo xamee ne suñu xel day dem ci sëñ bi ba day tooy lool ndax waxtu wi xam na ne waru fa woon fekk sëñ bi ndax kenn ku ne xam na ne tisbaar ba jëm tàkkusaan mag day noppalu waaye dégg ñu fi dégg tax sëñ bi def ñoo ngi tuubal yàlla tuubal yonent bi di tuubal sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima sëñ Moustapha ñoo ngi sant bu baax jërëjëf Fall jërëjëf Fall jaajëf jëf ji nag kawe na lool ci xalifa général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Menda sant na bu baax a baax mbooleem taalibe yi nga xam ne ay baay fal lañ wala ay soppey maam Cheikh Ibrahima fal jëf ji nga xam ne at mu jot daañu ko jëf tey dañ koy gën a yokku. sëñ Omar Serigne baa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi ngeen bokkal daayira bi ñu nekk fii ci soowu jant ak ñu nekk ca Canada sëriñ baa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. sëriñ baa ngi leen xamal ni jëf ji egsi na tey day jëf ju ñu nangu ndax jëf joo xam ne jii dafa jëm ci liggéeyal Cheikh Ibra jëf ju sëriñ jëf yi sëriñ bi sëriñ bi gën a fonk ci la bokk ndax sëriñ bi dafa bëgg liggéey bii muy liggéeyal Cheikh Ibra te jële ko ci sëriñ Cheikh jëmb dafa bëgg mu eggale ko fa sëriñ Cheikh jëmb fa mu ko bàyyi woon lu ci mën a yokk mu yokk ko mu jëm kaw ndax sëriñ Cheikh jëmbit fam ko bàyyi woon fam ko jële ak fam ko yóbbu kawe na kon nag sëriñ bii fi toog di sëriñ Moustapha Fall moom it bëgg ko yóbbu fu kawe yéen waa daayira bii nag yéen a ngi koy jàppale ci loolu kon sëriñ bi gis na ko te it jàpp na ko bu baax a baax a baax a baax ndax nekk fu sori sam xel nekk ci liggéeyal Cheikh nga nekk ci fu mel ni Canada di liggéeyal Cheikh loolu ndimbal la ci yéen ndax foofa kat ay nasaraan rek a fa ne te seenu nañuy dunde ñoom ku ko topp rek kon sam xel du nekk ci Cheikh Ibra Fall yéen nag seenum xel a ngi ci seenu xel nga ci tuba Serigne Touba seenu xel nga ci liggeel Cheikh rafal kon nak Serigne bi mi ngi len di sant di len geureum di ñaanal ñi ci bitim rew ak yeen ñi nekk fi ak ñi nekk dakaru ñom ñëpp Serigne bi gis na bi sant na len geureum na len bu baaxa baaxa baax mi ngi ñaanit yal na yag and ak yeen di liggeel Cheikh rafal serigne bang koy ñaan bu baaxa baaxa baaxa mi ngi ñaan daal ci doole Cheikh Fall lépp lu waay bëgg ci liggéey bii ngeen def na ko ci fas rek Cheikh Fall dina ko def mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax daayira Serigne Touba ba ngeen fa formé ah, te boole ci Cheikh xëy na ñëpp Cheikh Fall du seen la waaye da di def fu ngeen daje rek di fa liggéeyal Serigne Touba da ngeen liggéeyal ca wet ga loolu ngeen di liggéeyal Cheikh Fall it ca wet ga bu ñëwee fii it ci sëñ Touba la jëmaat kon sëriñ tubaa ngeen di liggéeyal ba tey ndax lépp lu ngeen indi fii ci sëriñ bi rek sëriñ bi da koy joxaat sëriñ Touba kon nag yéen ñi koy jàppale ci loolu sëriñ bi sant na leen gërëm na leen mu ngi ñaanal sëriñ Omar mi itam ab taxawaayam yàgg bu baax a baax a baax ndax na ma taxawoon ci sëñ Cheikh Jëmb rek ba tey noonu la taxawee rek na mu nekkoon ci sëñ Cheikh Jëmb noona la nekk ba léegi mu ngi liggéey Cheikh Ibra bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di ñaanal di ko ñaanal moom itam sëriñ bi sant na leen gërëm na leen jërë ngeen jëf jërëjëf. yéen xam bu baax. nee na yéen xam ngeen ko bu baax. te itam yéen liggéey liggéey boo xam ne. nee na yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ne. bu ma jógee foofu mu ngi Canada Canada. nee na mu bàyyi koo kanadaa jëm si fii. nee jëm si fii. yéeg nee na na. loolu boo ko liggéey. na boo ko dee liggéey. bëgg caa liggéey. bëgg caa jariñu bëgg caa jariñu. faaw nga sonn ca loola. nee na faaw nga sonn ca loola. ginnaaw yéen a ngi ci sonn nag. nee na ginnaaw yéen ngi ci sonn nag. yàlla saa borom moo leen di fay. nee yàlla saa borom moo leen di fay. ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. ak Cheikh Raba. ak Cheikh ci fàttali taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada di ay Baay Faal ak ay soppey maam Cheikh Ibrahima Fall at mu jot bu ñuy waajal koor gi daañu indi seen addiya fii ci xalif général des Baay Faal liggéey bi nag ñu ngi ko tàmbali woon depuis 2010 daaw ñu indi woon lu toll ci juróom-ñetti millions ren ji ñu yokk ko ba ci fukki millions.